lu jëm ci wàllu aar bi moo tax ñu koy def wante dañoo seet si suñu papa suñu xarit boroom xaar yàlla suñu papa ji nga xamante ne nii tey fekkee na démb fekkee na tey mën nañu wax ci démb mën nañu wax ci tey mu bokk ci magi démb yi bokk ci magu géwél yi xam lu bari nag ñu gis tamit suñu métier mi métier géwél mu xaw a wuuteeg bi doon am démb parce que tey xale yi tey niñ koy doxalee ak magi démb yi nuñ ko doon doxalee mu wute lool te bëri na tamit ay mag ñoo xamante nii ñu ngi ko fekkee di ko ñaawlu loolu bokk na ci li war a tax tey ñu amal émission bii nii tey nag ñu seet si suñu papa Lama Gueye mu dëkk fii ci xaar yàlla nekk Tambacounda bu mag fekkee démb fekkee tey mun ñu wax ci démb mun ñu wax ci tey euh, ñu koy nuyu rek di ko siyaara fas yéene ko jox mu présenté wu suñu papa ñoo ngi lay nuyu. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim eh, ndongo yow suma doom nga yow loo ma sant rek war naa ko mën a def ndax yow da nga bokk ci man di ànd ak sumay doom yi nga xam ne yaa ngi yem yéen a bokk aar bi man sax ci aar bi laa bokk waaye aar bi dafa am ñaari façon façon bi mooy façon bi mooy li ma daan def dama ko def ak samay moroom ba yàlla def ma nekk ci muskàllaf ba am samay doom ñoom itam ñi koy def kon dama ci sant yàlla bu baax parce que art bi ma nekk nii di daan tëgg di daan yëngu dafa am ñoo xam ne ñoom laa doon àndal di tëggal ak ñoom muy suma mag Khalil Gueye ak Ali Gueye maax ñoom ñoo bokkoon ndey ak baay te taay tëgg maak ñoom ñoo ànd ak Mass Mbaye ak ñoom Modou Gueye ak ñoom Lamine Faye ak ñoom Mbaye Faye ak ñeneen ak ñeneen ak ñoom Cheikh Ndigal ñu bari may ànd ak ñoom kon bu ma demee ba ñuy indi lii suma kër di ko def reportage war naa cee sawar ndax tëgg moom e lépp looy def da koy jàng parce que tëgg sabar dañ koy jàng comme ni ngay duggee école di koy jàng sixième ba dem cinquième da nga koy jàng ñun dañoo tarbu yi ba pare doo a mën parce que man laa ma géey mii toog ba sama doom yi tëgg dama daan mbalaxal sama nijaay mataar Mbay ndax sama sama papa ñoom ñëpp ay géwél lañ dañ daan tëgg sabar man Ibrahima Gueye moo ma jur man ma man dama bokk ci waa kër almaami Jali Muso. Hmm. waa kër almaami Jali Muso boobu nag. Hmm. ci la bokk ak ñoom Mbaye Dieye Faye mi nga xam ne moo dëkk Medina. Hmm. ñoom ñu sant Faye seen papa nekkoon Alaaji Vieux Seng Faye. yàlla na ko yàlla yërëm te yàlla na ko yàlla xara àjjana. mu daan an ak sama ñoom papa Ibrahima Gueye mi nga xamante moomu jur moom itam mi nga ca barsàq yàlla na ko yàlla yërëm ak sama maam bu naa Mbaas Gueye. ñuy tëgg sabar nag. ba ma nekk xale bu tuuti. fekk naa tuuti sama papa mais man ci mataar mbay laa doon mbalaxal boobu dëkk ñaari tali. ndax li ma mën nga gannaaw yàlla yonent bi eh, ci moom la jaar. kon donc boo ñëwee di ma def reportage bi war naa la wax lu leer lu mën a am. dëgg la ndax aar bi dañ ko daan tëgg ñun. waaye ñun ko daan tëggee kenn ku nekk ak sa waaye ñun dañ daan tëgg démb lañ daan tëgg te parce que boo gisee ñu wax démb dan koy bokk ak say famille ñi nga xam ne ñoo xam tëgg mi. dëgg la puisque lépp looy def da koy jàng dama ne tëgg da nga koy jàng. parce que tëgg da ngay commencé mbëng-mbëng mbalax da ngay mbalax da ngay mbalax tungo ne mbalax mbëng-mbëng mbalax ndeer jaar ci gorongu talmbar jaar ci cóol door a mën a tëgg. mais léegi septembre ba dañoo bari. dañuy jékkee-jékkee wut seen saman yeen ñun ay géwél lañu d' accord ay géwél waaye nag lépp looy def day fekk nga man ko. nga man ko. ak xam yoon nga mën ko. waaw loolu loolu am na importance parce que kooku mooy suñu papa li mu wax tamit mu nekk lu am solo wante dañu bëgg rek euh, ñu commencé liggéey bi ku ne xam ne ne lii dafa am yoon waaw lii mooy sabar te boo tegee say sabar am na foo war a commencé wante am na foo war a jeexale du dëgg loolu am na ci sabar wala amul si sabar mais tey soo waree tëgg programme fan nga war a commencé waaw bu fekkee ne da ngay tëgg sabar da ngay war a commencer dafa am foo xam ne foo ngay débuter. fi ngay débuter mooy mbalax yi. mbalax su parce que kii ci ngay passer se examen kii. kii ngay jàngee kii ngay jàng parce que boo jàng école dangay ngay dem sixième. waaw waaye doo jàng école maa ngi doon xëy dem premier. da ngay jàng kii mbalax mbëmbëng kii mooy mbëmbëng. bi ci daara mooy baa daal. kii mooy mbëmbëng. kii mbëmbëng la. kii itam mbëmbëg la waaye bokkuñu. Ah, ok ñaari yëpp ay mbëmbëg lañu. ay mbëmbëg lañu mais bokkuñu. parce que kii waaw différence la différence bi mooy. lan mooy lan mooy lii lañ daan tëggee lii demb li mooy sabaru démb. Ah. xale yi seen wàllu bopp ñi nga xam ne ñooy tëgg sabar. waaw kii pooru jëmbe la. mais ñaar ban moo gën. ñaari yi booy gën ñoom ñaar ay mbëmbëg lañu dëgg ñoom ñaar yëpp ay mbëmbëg lañu. kii bu nekkee fii mu tëgg. ba tey mi ngi tëgg waaye kii moo gën a présentable. kii mooy sabaru démb. sabaru kii mooy kii lii ay peeg la. waaw lii ay mees la. Mhm. ñu nas ko foor ko yéegal ko. Mhm. mais kii pooru jëmbe la yooyu mooy li bambara yi tëgg jëmbe. ah lii la bambara yi di tëggee. jëmbe waaw jëmbe mooy la. ba pare ñoom ñu foore ko toile. te toile kenn mus koo foor ci sabar. Ah, lii ay toile la. lii toile la mais kii der la. kër kër goo dem am na am na lii am na der. am na am na am na jëmbe parce que tëgg kenn ku dama wax la kenn ku nekk sa génération waaye ñun suñu bos ñun bu ñu daan tëgg. waaw xam ni lii am tëgg la. parce que tëgg da nga jàng ba mokkul ko ba dem tëggi mais léegi da ngay gis koo xam ne que day dem ci aar bi gis ñuy tëgg ne dem yetoon ay sabaram mais des fois tamit doguma la damay gis géwél bu ñuy tëgg. Mhm. yéen soo leen waroon a tëgg programme comme. xew wala tànnbéer lu mën a doon da ngeen di tàggu mbaar. mais xale yi tey est ce que ñu ngi tàggu mbaar. xale yi seen wàllu bopp. tàggatuñu mbaar. parce que kii tëgg sabar. placé ay sabar ma pare ñoo teg. les gars yi àcc nañu tëgg bi am sa batterie bopp nag. da ngay am sa batterie bopp boo xam ne boo jógee ñu xam fi nga jëm. man ma tëgg mu dem di jëli keneen. man samay waa kër rek ñoo ma daan tëgg su ma jógee di tëgg kenn ku ne xam ne fi ngay jàpp. aligéey moo aligéey suma rakk bi moo ma daan tulli suma mag xali moo ma daan tunguneel maas mbay moo ma daan balaxal ball seex ndigal moo ma daan talmbatal muy tëgg jinaani mhm. barke Seydina moo xam ne tëgg jinaani yoro ay sabar yu neex gorongu yéegal laa daan tëggee gorongu yéegal gorongu yéegal moo kii ñëw xaw a nuroo mais dañ ko def comme kii di ko foo di ko tëggee mais léegi yëpp amul xale yi ñooy ñëw tourner lépp gisatoo gorongu yéegal gisatoo kuy mbalax ndeer gisatoo ko yëpp ay mbëma lay doon ak ndeer bi ngay tëgee kon tëgg moomu dootul am benn gu. mais lu waral loolu jamono la wala booy ñoo jàngul. xale yi seen bopp noo jël sabar yi def ko comme musique. Ah. xam nga tax lu musique loolu. waaw yow ngay tëgg yow ngay tëgg sabar. Mm-hmm. yow ngay tëgg sabar. Mm-hmm. indi clavier indi cung indi jembe loolu yëpp nga bëgg ko boole ci tëgg mi yow kon looy tëgg. loolu est-ce que daan na am ci tëgg mi. musul am suñu tëgg ñun ay sabar rek ñu tëgg baara bay ñu taxaw tëgg ceebu jën tëgg faru jar tëgg yaaba tëgg mbabas mais xale yi xamatuñu sax tëggu yaaba xamuñu tëggu mbabas. waaw tey xale boo ci waxoon ne kaay mbalaxal ma mbabas euh, du ko tëgg. du ko du du ko tëgg. du ko et puis sabar yi liñ ci boole moo ci bokkul da ngay ñëw fekk kuy jaay mayga moo lay mbalaxal <laughs> kii jaay soble fee moo lay tunganeel kii jaay bitig bi moo lay mbalaxal mais yow looy tëgg. tëgg da ngay jël say mbokk yi nga xam ne ay géwél la nga àndoo ñoom dem tëggi. Mhm. boo jógee ñu xam fi nga jëm. Mhm. ba pare tëggu léegi dafa metti waaw tëggu léegi dafa metti da nga gis koo xam ne day tëgg tànn ba tërëxi tërëxi tërëxi tërëxi tëgg da tëgg boo tëggee pecckat bi bokkul soo tëggalee kii ba mu daaneel wàcceel di préparer encore keneen ku ñëwagul waaye même rythme doo doo gis mukk tàggu mbaar fi mu ne nii yi amul. rambax doo ko dégg. léegi tàggu mbaar amatul ci tëgg mi mais bu njëkkaan tamit suñu papa yi suñ laan tëgg dañ loon tëgg ci temps ndax xale yi tey est-ce que ñoom ñu ngi ñu ngi marqué temps parce que tamit bu ñu laan tëggal feccikat feccikat bi danaan compter di fecc ci temps ndax xale yi est-ce que ñoom loolu lépp mu ngi seen bopp. njàng mi mokkul mooy li ma la wax nii parce que ñoom tëggatuñu yoon xale yi fettatuñu yoon parce que dara gën a metti ngay tëggal nit nga yóbbu ko pare mu jékki-jékki di sumi dàll yi. di summi daal di summi kawas defaral ay daal yoo ngay tëgg fi nga jàpp déedéet. loolu amul ci tëgg. loolu amul pecckat dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg uh, su su mosaan dugg ci géew nga xam ne kii pecckat la mais léegi senegal ñëpp ay pecckat lañu waaye bu njëkk galan moo daan génne pecckat baara mbay ju wàcc tanam bi yi daan bàccaax wuraan bàccaax uh, uh, pecckat na bëri nga nga laal yi mais léegi amatul laal lii xale yi xamuñu laal lii pindanam ram yi daan baxtaan bi daan bàccaax amatul bu doon daal jaggi jaggi jaggi amatul. est-ce que yooyu yëpp amatul. day gis que est-ce que est-ce que duñu bàyyi papa mu mu mu déclenché wan am lu ñu wan tuuti ci ci ci ci tëggum démb ak yoonu tëgg ñu déglu ko rek mu mu am lu mu jàngale tuuti pour pour ñuy seetaan. dama lay woon di daan tàggu mbaar ba pare. tàggu waaw waaw surtout. léegi bu fekkee ne da yor gorongu yéegal. gorongu yéegal bu mel nii ñu def ko comme nii. waaw da nga koy teg nii. lu la neex mën ngaa tàggu bu la neex ne. loolu gorong moo koy tàggu mbaar. loolu gorong moo waaw mais bu fekkee sabar bu guddi bi ndeer la. waaw gi. bu fekkee ndeer da nga loolu tàggu mbaar la. kooku tàggu mbaar la mais xale yi léegi tàggatuñu mbaar. déggatoo kenn benn xale bu naan wura mbax déggatoo ko. amatul. non non da ngay dégg rek ñu daal jël yor seen gars naan loolu du tàggu mbaar gorong da nga koy teg. nga ne euh, gorong bu la euh, gorong moom loo neex mën ko tàggu mbaar. gorong gorong amul dënn. ok lu wow la rek mu nga ne. loolu mooy gorong soo gi Alaaji Ndiaye Coumba Rose ko yàlla yërëm képp ku tëgg gorong ci Sénégal gii di ko sóor. Mhm. daf ko mënoon loxo bi neexoon na macha allah. te mënoon naa tëgg géwél yi mag yooyu kenn dàqu leen tëgg. V5. Fatma Ndiaye. ñabali ñabali Dieng. Idrissa Ndiaye. ñooñu ñëpp boo leen dégg a jooy. magu démb dañ daan tëgg. Mhm. dañ daan tàggu mbaar. bu fekkee ne sabar bu gudd bi la. bu gudd bi la ah. nii nga def wuraam. su fekkee na ndeer la. ndeer wuraam mooy noonu lañ daan loolu amatul xale ñaan tëgg ay bàkk te ci ñoom laa ma a gisee nga commencé di tëgg di tàggu mbaar tungu ne bu ndaw ba di tàggu mbaar mbëmbë ngi di tàggu mbaar eh, eh, kee di tàggu mbaar kon kon tëgg amatul sens. mais xale est-ce que ñu ngi jàng comme ni daan def mag ñi dañ loon dañ loon jàng maanaam di répété. di jàng mais est xale yi am nañ temps boobu toog di répété di jàng. loo doon taalibeem doo doon sëriñam loo jàngul doo ko man tëgg ñun dañuy judd fekk ci ay tëgg mais dañ ko jàng mais munu ma rek sama papa tëgg dama ko doon damay tëgg déedéet dama ko jàng dama daan mbalax man mbalax naa lu mat six ans wala sept ans te boobu maa nekk xale bu ndaw ci laa formé sama batterie ñoom Aliou Guèye mii dama tëggal ak suma mag ñoom xale ak ñoom Mass Mbaye ñoo ñëpp tëgg da nga koy jàng mhm. te nag am na am na pecckat yu bari yoo xam ne galal moo di génne sugalan du duñu fecc mais xale yi léegi musique wala la ñuy fekk xoolal ñuy tëgg sama naan woo ah. ñëwal ñëwal ñu tuuti ñëwal ñu tuuti papa ci lu mel ni bu la neexee Baara Mbay wala wala Faas wala wala wala wala wala ceebu jën xoolal xoolal foo ñuy yóbbu léegi booy nga am loo ñu wan tuuti tëggkat yi léegi tëggkat yi dëgg léegi waaw tëggkat yoo dëgg ñe te tey ko tëgg. lii. ñii. li nga tëgg nii li ma tëgg boo ko tëggaloo du ko tëgg. parce que dafa am na oh, oh, bu xool euh, comme par exemple solo ci tëgg. ndeer mhm. sabar bu guddi bi ñaar lay doon. kii mbalax ak kii tëgg. Mhm. dafa am solo. heure booy tëgg boo moom su ne nii. boo amulee ci tëgg bu yóbbu nga bàyyi tëgg maa la ko wax tey tëgg mu amulee ndeer du tëgg du dem. kon tëgg mi tëgg mi day balancé day def nii. kon tëgg mi xale yi moytu nii nii nii xale boo sonni nii xam nga ñoom la ñuy def. xool mu neexee. waaye ba tàmbali du dem. baaxul du dem. tey koo ci waxoon defal nii mu ne pourtant mu naa ma def nii te ñun dañoo mën ba pare boo toog jàpp suñu jàmm bu bees te xale boo ci wax defal nii mu ne pourquoi mooy def nii léeg nga dégg ñuy tëgg loo xam ne da ngay waaru tëgg dafa am yoon barke Seydina ma tëgg dafa am yoon mais li nga ñaa ñaata ñaata ñaata kii nga tëgg ni lu lu lu wutee wala benn benn benn benn ci benn sabar yi lay doon ci benn sabar ci benn sabar eh, sabar bu nekk dama la woon ni ngay def mais li nga tëgg nii lan lan la baara mbay la no accès ko ci baara mbay ah, ceebu jën nga tëgg ceebu jën far bu jar laay tëgg noonu ah. xale yi mënuñu loolu parce que mënuñu mbalax ndeer mënuñu mbalax ndeer jànguñu ko mënuñu mbalax moom mag moom maasini jànguñu ko dañu gis kuy tëgg di en forme ñu ñëw rek dem ànd ak yow tëgg noonu comme ça te xam nga ñoom ñoom fan la ñuy tegee. nga teg clavier teg affaire ñuy ñu ñuy teg lu leen neex. ñoom pour ñoom maanaam foofu la affaire yi mooy affaire bi nekkul foofu. nit da ngay bari galan. waaw. galan da ko def sa poche. waaw léeg nga dem foo xam ne fii. billahi boo dooree cuuna doo doo tëgg. ndax lan. wallaahi. looy looy waral lool. ñàkk bañ a jàng. ni mën naa ñàkk mun quoi. ña ñàkk mën ne daa gannaaw mën naa mbalax rek mën naa tëgg ah, sama yoon nekku ci. bi tey barke Seydina Mohamed man bi may tëgg sabar cuune du ma mbalaxal parce que ñi ma daan àndil tëgg yëpp ay tëggatu sabar la dañoo mën comme man kon man léegi man damay daal di noppalu. waaw mais bu fekkee man damay tëgg ma jël ku ne ko ay yokkal ci kay du noonu ma di sotti tëgg mënoo boole tëgg ak wax. dëgg la munta ne. ba pare ngay tëggi jàpp si tubay xotti ko fi li ngay tëgg. waaw loolu tamit bëggoon nañ ci ñëw de mais mais balaa ñuy ñëw ci façon solin bi ak comportement bi. ñëwoon ñu ci Baara Mbaye gi tuuti ñu xool. waaw léegi Baara Mbaye gi. waaw euh, foofu laa jëm ci. waaw parce que Baara Mbaye day wàcc. mais am na yoo xam Baara Mbaye bu doon nabatoo bu doon nabatoo dafa am fu mu yem. bu ah, yéeg am bu demee ba fecc ba doyal wàccal di xaar kenn koy préparé di ñëw parce que yow ni ngay ñëwee ak ni kii di ñëwee bokkul. Hmm. ñoom seen yoon nañu rajo rajo rajo rek seen yoon nekku ci. du nu yeew doo dégg gorog mu tal ba dana jaggi jaggi jaggi rat kii ki lay turi naan Bougane Gueye Dany génn Gueye Dany Bougane Gueye Dany nga tagg mais yooyu yëpp amatul amatul léegi nag amoon na Baara Mbaye waaw bismillah ñu dem ci Baara Mbaye bi seetaan la amatul. ay waay dëggal li loolu yëpp amatul. ah loolu amatul xam nga lu ñuy tëgg mbabas. mbabas am na mbabas xale yi koo ci wax xam nga mbabas mu mbabas a ngi nii. xale boo joxoon ne kay mbalaxal mbabas du la mbalaxal mbabas. ah li mooy mbabas. kii mooy mbabas. mbabas dafa am ak ñaari gorong. ñaari gorong ak mbabas. maraxas dafa am maraxas kii koy tëgg. yow xale amatul papa. amul xol. dégg nga la xaylallah. dégg nga waaw non non tey tey tey tey. waaw tey magu géwél buñ seetaanee lii seen xol dinañ sedd. Moustapha laa la wax. Mhm. xale yu bëri ngi nii koo ci wax kaa tigga ma ma raxas wala wala wala mbabas dun la mbax la parce que mënuñu ko. parce que xam nañ est-ce que sax xam nañ ko. dañ ko jàngul. yow sa papa nekkul géwél sa yaay nekkul géwél sa nekkul géwél nooy koy jàngee. sabar yi mën naa nekk suñu kër sama doom du ma a tëgg. te nee dañoo bëgg a tëgg mais buñ ko jàngul duñ ko def samay doom yu bari ngi nii jàngul ma leen tëgg sabar de ci biir kër gi la ñuy nekk sooy mooy foor ñuy tëggantu ba tëgg ba mën a tëggi ñeen di sant parga ñoom itam dañu am seen i nit waaw waaye ñoom bu ñu amee seen nit mhm. su ma fa demee dinaa fekk si ñu ne ay waay laa maa ngi nii ma baaram bay tut ñu may ma xaaj bari ma ñibbi waaw c'est que tëgg danga ko war a jàng tëgg dëng ko war a jàng tëgg danga ko war a jàng xam fi ngay dugg ak fi ngay génne yow xamoo foo dugg xamoo fu lay génn kan moo leen baaxal ñu ne Beccaria kan moo leen baaxal ñu ne chinois bi jaay fii ay ay <laughs> non dara li ma la wax na ay ay naar ci tëgg te yi fekk fa ay ñoo xam ñu nga afro ne kan moo leen baaxal ñu ne kee mu tudd Edouard Edouard nu mu ah, eh, nañ ko teg ci yoon waaw lu ñu war a waxtaanee la teg ci yoon lu tegul ci yoon du tegul ci yoon te boo waxee loolu am léeg nga dem ci géew fekk ba benn meer bu toog di dégg di xale yi naa ñi daal li ñuy tëgg yow boo jëlee sabar gi tëgg def naa ko man dem naa tëngeej fekk xale yi tëgg foofu yandu ma toog dañu ma yóbbu nit ñi fecc fecc fecc ñu mënu dem ma ñëw waaji ne ko ma booba saram tàng boobu gis naa sama bopp ma ñëw ne ko sa waay nanga ma dee dama ñëwoon ci ngénte li bis fii sama jarbaal dañ koy mënoo peer am yàkkamti na maa jox gal nañ ma ñëw fekk fa ay quelques booy tëgg may ne yéen jàppaleen mais ba ma dooree baana bay maire bi ne ma yow doo ñibbi mukk. nan la ngay toog wallaahi. Ah, parce que dafa am ñoo xam ne galan moo di génne moo di yëkkati. xam na yoonu tëgg. mais ndongo xool nga yow nga jékki-jékki di way rek kay jaar fee. waaw. tëgg man dama ko gëm. parce que tëgg naa ci ñu ma dem ziare Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. man 2007 laa dem Makka. kon ndongo kooku mooy suñu papa. Euh, lii nag soo leen gisee ñu def ko. mooy kan ni instant bii nii. sabara ngi jooy magu géwél yaa ngi jooy parce que lan lañ doon dégg ci tëgg mi déggatuñ ko comportement bañ doon gis tamit ci ñi daan tëgg gisatuñ ko xale yi tey léegi lu leen neex la ñu sol nu leen neex la ñuy waxee nu leen neex la ñuy woyaane te woyaan dafa am yoon tëgg dafa am yoon di dem ci biir nit dafa am noo war a demee mais xale yi tey dafa mel ni loolu dañ ko jàngul xaw ma dañ leen ko jàngulul xaw ma dañ yaroo sago maanaam man man man man comprendre loolu nag moo waral tay ñu seet si suñu papa bëgg nañ tamit mu mu xuus tuuti ci wàllu comportement xale yi seen façon solin ak seen façon wayaan parce que mag ñi niñ daan wayaane ak xale yi léegi nu ñu wayaane ak seen comportement solin yi. waaw xam nga kenn ku nekk euh, nit moom bu la santee dara booy dem ci biir da ngay correct. da ngay amatul dañuy sangu da ngay sangu ba set ñun bu ñu daan tëggi. dan ñun xamuñu ñun kenn daawuñu yàkkam ci bu ñuy tëggi. mais ci xale yi léegi laa gis ñu war a tëgg cinq heures bala ñuy génn fii six heures six heures et demi laa ma boo ne ma quatre heures trois heures et demi dana fekk si bundu kër moo toog a ah, jàpp son fii bënn ko jaaro takk rosa lèvre di mees ko jël diw di diw ki tëgg bu la laalee nga doon naan bëgguma du ma laal mais pourquoi tëgg mi man gis nga man su ma xësee bay tëgg kii kii rek man moo tax a jóg ak peew yi man xooluma nga rafet xooluma nga service xooluma dara damay sol su ma yëre yu rafet toog gàddu sabar ñun dañ daan tëgg pare jàpp di ko gàddu ko xa xale duñ gàddu sabar ko cox mu ci siira ay daal jël éponge di tëgg ba caag di def nii. <laughs> yooyu mais non yooyu amul. fomp te da ngay appui ñi ngay tëggal da ngeen di respecté. yow xam nga damay respecté. Mm-hmm. fi may daanelee mooy. Mm-hmm. maa ngi sant waa Cité Marine. Cité Marine waaw surtout. parce que foofu laa defar sama jaar jaar. Cité Marine gi. diggante xaar yàlla. Kastoor. Jëppal. Derkele. Liberté 6. yooyu yëpp foo taxu ñu ne xam nañ laa ma waaye nag maa ngi sant yàlla sama am benn mbootaay boo xam ne. muy groupe Kaay Baax. groupe Kaay Baax. ñoo dëkk Cité Marine. waa Cité Marine ñoom Asulay Ndiaye. ñoom euh, Saw Jatu ñoom Wali Diop. waaw ñoom Roqe mi nga xam mooy yaay Assane Ndiaye. waaw ak ñoom Sanu Mbeng mhm. ak ñooñu ak ñeneen samay jarba ay ñoom Ayta ak ñooñu ma nekkal yëpp. Mhm. ak ki nga xam mooy su ma jigéen Oumy Sall moom mu dugal foofu mu gaañu maa tudd suma taw bu jigéen. maa ngi lépp lu mu mën ci moom la. si ñoom si ñoom la ko yàlla jaar. waaw di nuyu nag ñi nga xam ne ñooy sama mbokk yi waa Waale Daan yëpp sama jour yeeg yëpp. waaw surtout Waale Daan. ñu jël coupe zone départementale régionale mairie attaque mairie défense yëpp ñoo ko jël Bakar Sidi maa ngi Sidi Sidi Fall suma suma xarit. est que dooñu si ñamal tuuti balaa nga balaa nga tàggatoo. booba moo nekkoon capitaine d'équipe wàllu dal ay ñoom Sidi Fall ñoom may yoroo ah di gërëm ñoom euh, Pape Boubou Ndiaye. di gërëm ñoom Saliou Ba. Euh, di gërëm euh, ay ñoom Mame Marie Gata Ndiaye. maa ngi gërëm tam nag ki nga xam ne kii mooy suma xarit moom it. Mhm. koo xam ne kii maax moom démb la woon. muy jibi Camara. jibi jibi suma xarit. Mhm. du ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla ak Picca. jibi Camara ak ak Picca. Mhm. yaa ngi dégg di ko di ko ñaanal Pape Camara Gueye. suma xarit. Mhm. ak Pilincu nga xam ne mooy magu euh, Kati Mbaay di nuyu ñuy ñëpp di nuyu Ayta Seck. di nuyu Ndeye Njaañ Babacar. di nuyu ñoom assuré assuré Ndiaye sama jigéen yàlla na ko yàlla dem ak ñoom jaay na ma jaay si tamit ngeen bàyyiwuma kenn góor di jigéen kulim juum juum yow di la ñaanal yow mi ndongo ji sama doom parce que li nga def dama cee kontaan loolu bu la neexul mën nga def leen kii mënu ma ko defal keneen ku dul yow yàlla na may jàmm ñu féete lu bari nag maa ngi leen di baax di sant sama caméra bi nga xam ne mi ngi def lu baax lu baax di gërëm nag sama mag ñi nga xam ne ñoo naan muy suma mag mooy suma taaw yaay muy xalil. xalil xalil moom laa tuddee xalil muy suma doom bii. nga tuddee xali xalil mu ak ak Ali Guèye ma daan tulli. Mhm. te ñi sama doom dañuy tëgg. Mhm. kii laa tuddee xalil. kii laa tuddee Mbaye Thiam suma ma kii laa tuddee suma papa. <laughs> di gërëm nag xale yu jigéen ñi nekk fii ak ñoom ñu Algérie yëpp. waaye di gërëm waaye di gërëm sama doom yi jigéen ñu góor ñi waaye di gërëm nag xale yi nag suma soxna si nag waaw kenn du moom wax dëgg yàlla di gërëm ñëpp di gërëm aram nag jabaru paap nga xam ne mooy togg ceeb bu neex yi <laughs> ah, kii moo jur xale yi ndey seet mi ah, xale yi ci moom lañ juddee di ñaanal nga xam ne kii nag mooy ndey faatu <laughs> waaw ndey faatu sama taw bi moom moom salon bi ak ñi ñëpp di naanal naaru sama caat bi bi yaayam tukkee ba léegi nag moom mooy toppatoo waaw mooy topp yëpp di ñaanal ñëpp nag di may jàmm ñëpp jàmm yàlla na yàlla may jàmm ñu fekkee dee ñu bari xaaral ma tàggu mbaar baara may tuuti rek ñu daal di mata mata ñu dem julli ji waay Samba loolu loolu loolu loolu loolu loolu for na loolu neex na ñu ngi sant suñu papa di ko gërëm moom tamit wax dëgg yàlla yombalal nañu liggéey bi te jàppale nañu tamit ci ci ci ci li nga xamante ne nii tey mooy suñu liggéey yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla bàyyi ci kanam njaboot gi yal na nga dund bañ lay weer di la weeri yàlla bu ñu séddale dara sa ginnaaw mu nekk na papa ju baax papa ju papa ju jara waaw waaw papa ju neex a tiituroo papa joo xamante ne nii saa boo gisee saa boo ko gisee rek lu baax ak lu rafet ngay gis ci moom di ko ñaanal jàmm di sant nag sama jinne caméraman bi Thierno borom Medina euh, di gërëm suñu DC tamit Ousmane Ousmane ñu ngi lay Ousmane Seye ñu ngi lay nuyu di la siyaar da la bëggee baax a baax a baax waaw di sant di gërëm suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp yéen ñi nga xam ne yéen ñuy safoo ci Dakar euh, Dakar midi ñu ngi leen ciy bëggee bu baax a baax a baax tey nag. tey dañ leen ñëwaloon fii ci xaar yàlla seetoon suñu papa ñu ngi leen di jox. et puis maa ngi gërëm tam xale yi nga xam ne ñooy ànd sama doom yi di tëgg ñu ngi nii toog fii kër gi. Mm-hmm. ñoom demuñu penn àndandoo kenn. Mm-hmm. muy ñoom Youssou Mbaye ak ñoom Papa ak ñoom Elzi mi nga xam ne xale moom la ñu tuddee ki kii moo doon Mbaye Thiam sama doom yi tëgg ñoom ñii ñëpp. ci kër ga la ñu ne. demuñu penn ñu ngi fiy toog. dëgg la lépp loo xam ne def ñoom ñoom koy ànd. ñoo koy jàppale. te nag amuñu benn iñaan moom. ndeysaan kon nit na bu fekkee def dañuy ànd ak say doom di def loolu. Mhm. danañ koy sant. dëgg la waaye na seen i baay ñoo mel noonu. dëgg la parce que Mass Mbaye mhm. moo jur ñi mhm. di sama doomu nijaay. Mhm. di sama lépp ñuy ànd ak ñoom di tëgg. Mhm. kon donc moo defaloo war naa ci wax di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp. dëgg la Cité Mbarine bàyyiwuma kenn. Mhm. bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn parce que foofu laa defee suma suma suma jaar-jaar. di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla may gudd fan kontaan naa tam jërëjëf. waaw jërëjëf jërëjëf lii nag moo nekkoon suñu premier numéro ñu ngi leen di jox rendez-vous euh, ci suñu deuxième numéro ci suñu beneen Tambar Monsor ci suñu beneen papa suñu beneen kilifa suñu beneen maestro ci suñu beneen magum géwél Euh, ci émission tribunalu aar bi di leen jox rendez ba beneen yoon merci jërë ngeen jëf